ahousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam bu màgg bi ñoo ngi leen di nuy te di leen siyaare di leen ñaanal di sakku seen ñaan di dellu siwaat seen émission bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci seen site bi ñuy wax 24actu ñu dellu siwaat ci tomb yi ak di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi nuy siiwur ci réew mi ak ci bitim réew di ñaan yàlla sefal leen jàmm ak tawféex di ñaanal bu baax a baax soxna maam xari mbàkke murtada di ñaan yàlla may ko fan wu gudd ak wér di bu baax a baax soxna moom yi kebe moom allah ci njuga kebe di siyaara sun xarit sëñ baara mbàkke moom sëñ maam moor fàllilu ñu dellu siwaat ci jataay bi nin ko baaxoo def tey ñu bëgg waxtaane xol bu set xol bu set xalbum salim xol bu set nag mooy xol boo xamante ni dafa defaru ba benn sikk benn tomb bu ñuul amatu ci wala gàkk-gàkk alxuraan de xam ngeen ne wax nu xol ni mu war a mel yonent bi sallallahu alayhi wax nu xol yi tamit bu set ni mu war a mel ak xol mooy lan ci nit xol li mu doon ci nit bi ko yonent bi sallallahu alayhi di misaal dafa mel ni dafa doon cax saxaaba yi ñu defar benn gàtt yonent bi salaa salaam woo kenn ci saxaaba yi ne ko demal xoolal ma lan moo gën ci gàtt bi nga indil ma ko ndawal ga la ca gën mu dem indi xol bi mu demaat yonent bi salaa salaam waxaat ko ne ko demal seet la ci gën a yées nga indilaatal ma ko mu dem jël xol bi indil ko loolu kon li muy tekki mooy xol bu set mooy xol mooy nit xol su baaxee lépp baax su xol baaxut dara du baax yonent bi salaa salaam nee na am na wenn suux wu nekk ci biir nit woo xamante ni suux woowu su baaxee lépp bu baax su bonee lépp bon suux woowu nag mooy xol mooy xol alxuraan dikk firndeel nu ko bu baax ne nu ëllëg yomal xiyaam de dara amu fa solo dara amu fa njariñ lu dul xol bu set yowma laa yanfaxu maalu wala bannuunu illa man atallaahu bi xalbin salim nee na foofa daal duñ fa indaale ay xaalis yu bari wala ay doom yu bari wala dara waaye lan fay indaale mu am fa njariñ mooy xol bu set kon nit ki war naa yëg ne xolam la war a defar xol nag danoo wax ne mooy boroom xam-xam yi danoo wax ne boo gisee baatu laa ilaha illallah amul benn combañ nee na li nga xam ne xol mooy tudd loolu ndax làmmañ mën naa tudd baat yi te fekk ne du dëgg ci moom waaye xolam bu dëggoo li nga xam ne amul benn tomb ni la xol bi di mel xol bi du am benn tupp tupp ndax xol ay tupp tupp yu ñuul ak yu yu weex lay am bu fekkee ne da ngaa nekk di sikkar baatu laa ilaha illa ak boobu loolu fees sa bu boobaa da ngay mujj xol bi day dem ba set ba mujj xol bi day weex ay tupp tupp yu weex lay am waaye saa bu amee ay tupp tupp yu ñuul rek xamal ne xol bi setagul xol bu set nag wala xol jëmmi xol rek day feebar feebar xam ngeen ne boo demoon tey ci hôpital dem ci médecin yi ne leen dama bëgg ngeen xoolal ma sama yaram xool sama xol ndax day gis ne bu may naan kafe wala bu may def dara day wex xol bi daal day metti yenn saa yi loolu lan moo koy def xoolal leen ma xol bi ñu xool sa xol mën na médecin yi mën nañ koo xool ba noppi ne la yow de gisuñu benn feebar sa xol de wax dëgg yàlla amul benn feebar waaye boo ko wanee lislaam day wane ne xol bi kat ndekete feebar yu bare bare bare ngi ci feebar boo xamante ni bu nu gaawul ci faj ko sax mu alak ko feebar boobu moom lislaam ban feebar lay jàppe ne moom bu xoolee xol bi ban feebar lay wax ne moo ci nekk mooy da ciy gis feebaru rëy wala mu gis ci feebaru iñaan wala mu gis ci feebaru bëgg àdduna walla mu gis ci feebaru bëgg nelaw wala mu gis ci feebaru bëgg ngissal wala mu gis ci feebaru bëgg taggaate bëgg daraja iñaan yooyu yëpp ay feebar la yoo xam ne day gàllankoor xol kon xol xol li koy wër ci ay feebar day feebar yu bari yu ko mën a jële bu bii feebar mën nan koo faj mu wér ndekete am na beneen feebar bu fa nekk ñu xoj faj feebaru nay ba nga xam ne nay dañ na waaye ñu xool tuuti gis feebar bi nga xam ne feebaru bëgg àdduna la boobu bu dee docteur bi mën a faj moom jàngoor yi yépp lay fexe ba kii ko waaye su fekkee ne dafa faj xol bi dafa faj feebaru rëy bàyyi feebaru nay feebaru iñaan feebar yooyu yëpp day wane ne jàngoro des na fi coo xamante ni ba léegi mën naa alak xol bi mën na koo lekk moo tax xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim xisaawatun am nit ki xolam day dem ba feebar noppam dootu nangoo dégg dëgg sax loolu feebar la na ñàkk nangoo dégg dëgg loolu feebar la nit koo xamante ni tamit day jëw maanaam mënoo tagg kenn ci wetam koo ne ku baax la mu ne déedéet kooku baaxul dangeen koo xamul kon feebar yooyu nekk ci xol li koy kiil mooy jàng alxuraan saraxe salaatu ala nabi tudd yàlla di woor yooyu yëpp day day day laabal xol di jël ci sa alal waxtu wi nga xam ne joxe alal jafe na nit ki masala ñu dikk nga gis benn waay boo xamante nii da ngaa dem comme ni ko mag ñi daan defee Eh, dikk nga dikk ci kër suba teel na ko sawaay man de dépasse bàyyiwuma ko ci kër ga moom fekk na joxoon na soxnaam dépasse mu woo ko ne ko soxna si kaay mu ne ko la ma la joxoon anam mbaa kii mu ne ko mu ngi fi mu daal ne ko indi ko daal di koy jox benn waay kuy sàkku si ndimbal ci sa kanam te dépasse boobu moom rek la yoroon ne la toogal xaar tuuti ba xam nga toog xaar tuuti yàlla indiwaat fa lu ëpp loolu loolu nag ki ko man mooy xol bu defaru metti nga mën a ñëw seet si ko wala nga mën a dem wutal ko ku ko faj wala nga mën koo jëndal ordonnance yooyu yépp ay feebar la yoo xamante ni xol bu defaroon bu xol bu wéree nag lii tax wér na mooy bëgg yàlla def ciy nekk bëgg yonante bi da ciy nekk def lu baax da ciy nekk booy jóg di def lu baax sax doo ko tey ngay jëkk-jëkk di ko def ndax doo ko tey fekk na booba sa xol wér boo wéree ci feebar bi noonu la waaye saa bu xol bi wérut saa boo demee ba tàllal di bëgg a joxe seytaane la ah yow boo joxee xaalis ni mu ña ni mu ni mu ni mu ni mu jafee am boo ko joxee da nga koy ñàkk nit ñi kenn mënte kii ci ñoom bul joxe bul joxe téel seytaan loolu la lay wax ne la booy joxee da ngay ñàkk de te boo ñàkk yaag moom yaag ñoom ay yem da ngay mujj dem di laaj waaye boo xamee ne yàlla mi lay jox sa wërsëg moom moo ko yore te yàlla daf laa wax bu la joxee lu la ëpp daf laa séddaleloo yàlla bu la joxee lu la ëpp daf laa wax séddaleel nit ki nag xolam war a dem ba bu gisee lu rafet am na ñoo xam ne seen feebar bu ñu gisee lu rafet duñ ko yëf yi da rafetewul noonu man de bokkul man de ni ko nit ñi gis rafetul fekk na booba xol bi moo dese ci feebar maanaam yonent bi salaa salaam dane boo gisee nit koo xam da nga koo sopp bëgg ko woo ko wax ko ko ne ko sëñ bi wala nga ne ko soxna si man dama laa bëgg rek ngir yàlla ndax loolu dafa bokk ci kenn waru koo denc mooy soo bëggee nit da ko koo war a wax am na ñoo xamante ni loolu nag lu jafe ci ñoom la wax ko dama laa bëgg rek te yàlla tax dara ajuwu ca déedéet ñoom koy dañ lay bëgg bu dee jigéen ñu bëgg la as ndaw wala ñu bëgg la nangam bu dee góor ñu bëgg la ngir sa alal wala nangam waaye bëgg la nii rek ngir yàlla déedéet nit ki nag feeg defarwut loolu ku ko mere ak ku ko bañ feeg defarwut su ma defee li nit ñi dañ may mere loolu dëgg la su ma ko defee day nangam waaye yooyu day fekk ne àggagoo ci dayob defaru moo tax nit ki war nay raxas xolam xol dañ koy raxas ni nga xam ne fóotkat bi day fóot bu fóotee ba noppi jël ordre sewal jël kii ba noppi jul di fete fete bu baax xol noonu lañ koy def xel da ngay tàggatu ak moom di xeex maanaam xeex li ñuy wax xeex xeex xol moom dañuy kaboy ak moom di xeex xol bi ñuy wax nag mooy xol bi nga xam ne du xol bi nga xam ne médecin bi da koo seet ne dara nekku ci amul tawat waaye du xol bi nga xam ne tamit dafa lunku nii am benn kii waaye xol boobu boo ko raxasee mooy doon xol bi nga xam ne nit ki léppam yàlla la boo gisee addi su xut si bi wax ne nit ki deful li gën a farata ay farataam di def ay naafilaam bu ko defee day dem ba mooy nekk yàlla bu tàlla yàlla tàllalee loxoom day mel ni moo tàllal loxoom bu kiyee mooy bu boobaa mooy nit ki defaru na ba lu mu xool yàlla la cee gis lu mu xool rek bu xooloon tey appareil bi du gis appareil bi waaye yàlla la ciy gis du yàlla la ciy gis xoolal nit yàlla yi nga xam ne àggoon nañ ci ba fubal football sax dañ ko daan xool di ci gis yàlla ndax dañuy wax ne ndekete yàlla nii leen ko war a wute da daw di daw di dem den saa nga daw mu mbas la fii nga dawaat aw fële waaye dàq yàlla yàlla moo tax nit ñi dañuy wax ne lépp loo xamante ni da nga koo ragal da koy daw ba mu yàlla yàlla soo ko ragalee da ngay daw da nga koy wuti ndax dangay ngay tuub jëm ci ñoom di jaamu di jëm ci moom di jéggalu di def na xol nag bokk na ci li ko gën a raxat mooy salaatu ala nabi bokk na ci li raxas xol istixfaar bokk na ci nii laxas xol saraxe bokk na ci liy raxas xol tiim aw ñam war koo lekk nga joxe ko ngir yàlla nit dikk dis le soxla nga jox ko xoolatey konti banque yi ni mel nga xam ne nit ñi te xol dañ koo tëkkale ak alal almaalu saqiqu ruu dañoo wax ne xol maanaam alal dafa sax ci ruu dafa sax ci xol sooy joxe gis nga ne ñu néew mën a joxe moo tax yonante bi sallallahu alayhi méngale joxe ak xeex mu ne nit ki ki man ci joxe bu ngeen xeexoon moo lay man maanaam ki la gën a rafet xol bu ngeen xeexoon mooy xol boroom xol bu bu rafet maanaam du sonn mukk mukk ci àdduna maanaam jëmmi xol bu set xol bu set maanaam féexte gi ngay am ci àdduna ak doo am benn problème doo am dara xoolal ñi yor alal ñi nga xam ne dañuy xëccoo àdduna ñi nga xam ne danoo nay ñi iñaan seen xol du féex mukk doo gis mukk mukk benn sentir xol boo demee boo leen di nuyu sax da ngay yëg ne problème la am ah man de tey gis naa sa waaye waaye de mel na ne problème la am de dëgg la problème la am na mooy xolam moo mënta dikk yu yu baax yi muy dégg yi muy dégg ci nit ñi wala yi muy gis ci nit ñi jàpp na ne moom rek moo war a am bu nit amee mu metti ko bu nit eh, amee dara mu metti ko bu nit eh, gañee dara mu metti ko maanaam xolam daal pour mu neex mooy moom dong kooku nag toujours ci coono lay nekk xoolal ki nga xam ne ay faqir la nga gis leen ñoo xam ne ci mbedd mi leen yi bu ñuy dox soo doo yëg ne da nga naa waa kii moom wéeru na fekk na xolam moo féex lool nga gis koo xam ci étage ay oto ay nangam waaye suy dox sax da ngay sentir ne am na lu lu koy metti lu koy metti mooy xolom moo féexut mooy àdduna bi muy lañ-lañi di ci xërti xërti di ci njëkkante àdduna boobu mooy fees ci xolam ba xolam du ci tala tudd yàlla du ci tala def salaatu ala nabi du ci tala joxe du ci am na ñoo xamante ni da ngay gis sax seen oto bu ñu leen wàccee ne leen sëñ bi dama ngir yàlla ngir yàlla di yàlla wa sëñ bi jégal na ko jégal jégal nga xam ne jamono yooyu duñ leen tal sax dun tal maanaam génne jox ci yoonu yàlla su fekk na booba te yu bari fees na seen xol te yu bari bari te loolu ku am seetlu dee ko seetlu rek yenn da ngay def benn xale bu ndaw wala na wala soxna su oto bi gaare wala nit ki kar la ne la sëñ bi ngir yàlla wala soxna nga jégal ko jégal nu ko jégal sa demal waaye yow jégal nu nga xam ne boobu jamono yooyu day mel ni xolam mënta deseere sax ku koy wax ci lu jëm ci xeet yooyu te moo ne kooko da def lay dimbali moom dafa ñàkk yàlla digal ko ne ko demal laaj mu dikk di la laaj wala mu dikk di la di diis ndimbal di la wax ndimbal wala mu jaaxle kooku nga war a am dal pour recevoir ko sa mbir yi ngay lijjanti sax man naa am moom yàllaa ko yebal ne ko keede bu la saraxalee bu saraxee li muy lijjanti dina lijjanti keede sa aajo jee bu ca defee dara li mu soxla dina ko dina ko daal di am. nga xam ne nit ki yooyu la war a tàggatu ba nga xam ne daf ciy tàggatu am na ñoo xamante ni sa gis nga ko dañuy concurrence ci lépp lañu ko. boo demoon ci rajo yi kii liggéey ci rajo bi du daanaka du bëgg kële rajo nangam kii liggéey ci télé bi télé bi rek lay jàpp nangam nga xam ne ki nekk ci kër gi kër gi lay nekk ki nekk murit moom daanaka ki nekk tijaan du ci wax dara xolam du ko mën a deseere sax bu doon xool ay jàngi tijaan ci télé bi sax toppale ki nekk tijaan bu xoolee jàng murit ki nekk ibaadu ki nekk waxaay bi yoonu te yooyu yëpp bu fekkee ne dëgg la ñun ñëpp ci lislaam la ñuy woote ci lislaam la ñuy jëm ku ci nekk sa xol war naa mën a rafetlu li nit ki nekk li nga war a mën a rafet mooy nga gis kuy mooy yàlla kay wala kii li muy def euh, dëppoo wut ak sunna nga laabire ko te loolu laabire la laabire nag ikkam moo koy def du caage nag dangay laabire nit rek taxaw ci tele wala nangam yéen li ngeen fi def du dara loolu yonent bi daaw nangam yooyu du waxin wi waaye laabire la doon kooku danga war a jànkonteeg coonab fan laay jaar ba mën koo laabire bu fekkee lool rek nga jànkonteel loolu mooy doon sa problème waaye du doon problème li muy jëf nit ki kon jikko yooyu dafa war a set ci moom koo xamante ni tamit bu déggee dëgg fekk déggewu ko ci mbokkam wala ci ñëmu kuréelam du nangu dëgg googu loolu ñàkk a defaroo la loolu xol bu setul la xol bu setul la kon nit ki na laabal xolam ndax xol bi su ginnaaw bu baaxee lépp bu baax bu boo bu baaxul dara du baax na xol bi baax xol bi nag li ko mën a seere moom xol bi li mën a seere ne baax na wala defaru na mooy li nekk ci xol bi day génn ci cër yi nga koy jëf maanaam baax naa ba noppi te nangu woo koo jëf déedéet wala sama xol set na ak nit ñi li ñuy wax loolu du demewut noon na yàlla moom xol rek la la xol bi rek moo takku déedéet xol bi takku na waaye jëf ji takku na ay na sa xol bëgg yàlla bëgg yonent bi te doo julli bu boobaa doo am dara faawu rek nga bëgg yàlla topp ndigali yonant bi di julli sa xol mën te bu boobaa bu bu sa xol defaroo dangay bëgg ndigalu yàlla yi ndigalu yàlla yi loo ci dégg rek da koy daal di kii yonant bi salaa salaam nee na bu ngeen julli woon ba mel ni ay sukkoor woor ba mel ni ba bu ngeen julli woon ba mel ni ay putureel woor ba gën a mën a woor sukkoor yi te seen xol baaxul du leen jariñ dara xol bu baax mooy kii kon mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa liñ bëggoon a wax lépp sax jëkkawun ko noonu waaye nag liñ bëgg a wax daal xol bu defaru mooy bu defaru nga gis nit def lu rafet nga ne ko ah yow des def nga lu rafet nga gis nit def waxtaan comme Saliou def waxtaan nga yëg ne waxtaan wi am nay njuumte nga woo ko laabire ko ah sa waxtaan wa de kera moom gis naa tuuti ay njuumte yoo xam ne xam naa lu baax nga bëgg loolu wàññiwul dara nit ku defarut war naa nangu loolu ornaano man de bokk na ci yéen ñii di seetaan ak kuy déglu ku ci dégg benn njuumte wala benn loo xam ne wax ji jaarut yoon maa ngi lay ñaan nga laabire ma xam ne njuumte la ci man waaye loolu sama kii bu fekkee juum juumi tamit euh, maanaam euh, feebaru iñaan bi daf ma dugg noonu feebar bi dal nit wala feebar bi dugg ci xol daf maa dugg nga yéeg ni yéen ñii seetaan ngeen yéeg ne feebar boobu kat dugg na ma ngeen dimbali ma laabire ma ci ndax doomu aadama matul te feebar yooyu ki ci mucc yombul yombul kon ñun ñëpp da ku ci nekk nag yow mi seetaan nit ak di ko déglu yaa mën a xam feebaram yenn saa nga seetaan nit di nga xam ne kii feebaru bëgg àdduna dugg na ko manière yi muy wane ni muy def nangam tagg gi muy bëgg tagg boppam ku koy tagg ni mu koy neexe ni muy yëkkatikoo ko yooyu yëpp yonent bi sala salaam bokkoon na ci li mu gënoon a bañ taggaate bu nit masaana dikk naa ko yow yaay nanga mu ne leen wax leen seen soxla man sama taggaate mënta paase Muhammad doomi Abdullahi ak Muhammad ndawal yàlla ak jaamab yàlla man yooyu mooy sama taggaate Muhammad ibnu Abdullahi wala nga ne Muhammad rasulullahi Abdullahi man jaamab yàlla ak ndawam ak ab yonante la woowu taggaate la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Baye Moussa Ka mu nekkoon ci caméraman bi ki nga xam ne moo doon réaliser émission bi soxna Awa Ndiaye ki ko doon monté mooy soxna Khady Niang wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. murtajan minnatun lana jari